as waaw waaw loolu am na solo. ah. ah. kii kaaw la de grand. xam nga kii. ah xaaral ma wax la ko ma wax la ko. wax ma ko. kii mooy Kaaw si Cissé numéro 2. xam nga faram si yow. ah waaw après naa la woo kii yow laay wax yaay kii yaay kan kii laa koy wax. yu bari yi ba pare mënul ñax. Euh, kaaw nuyoo la. dafa baax auzu billaahi mina seytaani rajiim mooy ginnaaw ba ñu sant yàlla junni sunu di sant suñu ñaari waajur waxal di bëggee waa Dalifort yëpp di bëggee gaay yi mu àndal ñoom Bamba ñoom Pula di bëggee gaay yëpp ba yow doo dossier yow barke alxuraan doo dossier war naa am dara barke alxuraan doo dossier yow maa la man maa la asalaamaaleykum ginnaaw ma sant yàlla julli ci yonent bi sant samay ñaari waajur Mamadou Fall di ziar bu baax a baax bu baax yow ñaata combat nga bëreegum man damaa jëm sama dixième combat ñaata victoire nga am am na neuf victoire. bàyyil bàyyil bant bi ngay fëgg am nga neuf victoire. waaw benn défaite ñaata combat nga bëree. man bëri naa six combat. ñaata victoire s'il te plaît. waxal cinq victoire ak benn défaite. ak benn défaite xamante ngeen. kii xaw ma ko moo ki paa la. yow maa la mën maa la ëpp doole billaahi. combat du ma minute. ak ñi ma daan. koo daan koo daan. sama premier combat boo ko faas rek jeexal nga waaw ndaanaan la mooy sama premier combat daan. ñu Hmm? ba yow doo dossier yow. billaahi. yaa gën a tuuti ci may bëre dama entraîné ji. lii ay 250 kilos de moo day wàcc ak moom suuf. maa la mën maa la ëpp. taxawal nii taxawal nii rek. on lu may wax ak yow. seq maa yow wax. ah le 25. jëf lañ seq ma la yow maa la mën maa la doole doo dërëm. baa nga. maa la daal. moo kii moo lii billaahi. lii ay 250 kilos day wàcc ak moom yow xanaa xamoo ma yow. bu baax bàyyi ba maa moom ñoo bokk ko ci waaw suñu nijaay la ñun amal nañu njëriñ man boo amal na ma njëriñ boo xam monsieur le maire amaluma ko parce que may dalee bëre ba léegi ni ciy jàppe maire su ma nee am na solo su ma amee comme xaalis yu bari lay yëkkati di ma ko jox mhm. moom moom amoo fayam quoi ñoo bokk benn koñ mhm. waaw di sant gars yi jàpp ku mel ni grand Tafa Ndiaye Papis sama njaago bi Tafa Mbaye di sant sama fans club yëpp mhm. benn sama dëkk xombal nag di sant waa xombal bu baax a baax a baax. Mhm. ministre bi maa ngi koy sant bu baax Antoine. Mhm. da ciy jàpp te da ci gën a jàpp bu baax a baax a baax a baax a baax. a de sant nga mbaay. waaw mhm. santal bu baax. gars yi lu may wax ak yow man maa la mën fuuf maa la fuuf di sant waa école Lille Mor Fadam yëpp yëpp yëpp amu seen fay. su ma sante entraîneurs yi parce que ñoom dañuy bàyyi seen lépp ñëw ci ñun. fayuñ leen dara. waaw ñoom fayuñ leen dara ak staff bi surtout sama fans club bi góor ak jigéen di sant waa Géewaay gi yëpp yëpp waaw wasalaam. Kaaw. wooteel. waaw bëggee maa ngi bëggee ma xool sama père yi fu toog yëpp. ma xool di wax Kaaw Cissé doon dafa Kaaw Cissé mag dafa gaay jàppale quoi. waaw ah, affaire bi dafa métti dafa yàgg. macha allah waaw depuis ba léegi. dëgg la xam nga waaw du bëggee waa Dalifor yëpp du bëggee ay gars yu ma àndal ñoom Bamba. Mhm. ñoom du bëggee gars du bëggee Dieng sama kosi du bëggee ñëpp mhm. du bëggee ma xool Badiom na jàpp si tigee ar awañaa du bëggee gaayëpp mhm. du bëggee waa Ndulla waa mhm. Daaru Salaam waa Yaraax waa Maris du bëggee ñëpp yow maa yow du combat bi ñu weesu léegi